ne daal dafa gis ay gëlëm yoo xam ne ay araabu ko màng mu ne ko ah, su fekkee ne borom jàng mi feeñ na borom yet wi yegsi na xamal ne Faris Isra moomatu ko ñu ne ko itamit fukki toj tojeeg ñeent yi li muy junji mooy fukki buur ak ñeent yu la faaris dese dootuñu amati buur mu ne ah kon kay ñëwagul kon mën naa nguur waaye balaa yonentu sallallahu alayhi wa sallam di ñëw fii di gàddaay ñu fi jógee ci xilaafa Seydina Omar la fukki buur ak ñeent yooyu yëpp mët ba faaris mu di nekk ci loxol lislaam nañ ne yonentu sallallahu alayhi wa bi mu juddoo bépp xërëm bu ñuy jàmm ci suuf nga fanaan bu ñu defar ba teg rek mu daal ndax ki war a ñëw pour toj si xërëm yi juddu si juddu na mu yonentu sallallahu kaaba gi wax nañ ne dafa yëngatu ñetti fan yoo xam ne dalut lu tax parce que yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonentu sallallahu alayhi wa sallam juddoo foo xool rek ci àdduna bi leer ngay gis waxuma la suñu aalam bi waaye jinne yi sax dañ doon woote wante di bégalante ngir kii soog a judd wal jinnu tahtifu wal anwaaru saatiatun wal xaqu yadharu min maana wa min kalimi wal imam Busiri mu ne wal jëndu taxtiku junni yaa ngi woote wala anwaaru leer yëpp saati atul way jolli lañ boo xool rek gis mu leer nañ wala xaqu yadharu min maanan wa min kalim soo amee dégg-dégg xam ne dëgg feeñ na soo amee gis-gis xam ne dëgg feeñ feeñ na ci biir feeñ na ci biti day xadij day aminatu mi nga xam ne mooy yaay yonantu sallallahu alayhi wax na ne moom amul benn méttit bu jigéen di yëg bu mu yëg ci nekk temps bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nekk ci biir benn bi yonent benn benn méttit ko nee bi mu amee juróom benn weer ci ëmb bi dafa am lu ko feeñu ne ko ki ngay ëmb dee mooy ki gën ci li yàlla bind su juddoo na nga ko tuddee Ahmed su juddoo na nga ko tuddee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba juróom benn weer la am ci biiram te booba échographie ak xam-xam yu bees yi amuñu ba ñu mën a xam su ngi ëmb góor la wala jigéen moo tax ndey Aminatu ba nga xamee ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nàmp ba Xalimat jaaxle ci moom ndax dafa ànd ak xale yi rek till yu bari wala ay till ñett lañ wala ñeent lañ ñu ne ay malaaka lañ ñoo ñëw ci forme till jàpp ko ndekete dañuy opeere xol ba génnee la nga xam ne wala seytaane di jaaree pour mën la def lool lim mu bëgg ba xalima yégée ne yonentu ay till jàpp nañ ko mu ñëw gisul dara mu laaj ko lu xew mu wax ko ko mu tiit delloo ji ko aminatu ne damay ragal daal jinne walla rab walla luy gaañ gaañ ko aminatu ne sama doom ji seetaane ci moom ci la te booba ñaari at rek la am moom ko moom xam na lim lim kim yi ndikat la moo tax ba mu amee juróom benn weer lañ ko wax ni ko ki nga um mooy ki gën ci li yàlla bu Ahmed juddee tuddee ko Muhammad te Aminatu waxul dara maamam kat maamam yonentu sallallahu alayhi wa juddu mu tuddee ko Muhammad ahlan bi yawmin summi Muhammadan xayra ismi ramzan li maana min jaddihi li yan jaddi ñu ne ko Muhammad mu ne dama bëgg asamaan ak suuf yëpp mahmud mooy ko ñu sant muhammad nag mooy koo xam ne fu mu toll ñu ngi koy sant maanaam lépp ba ma sant maanaam ñi nekkee nit ku santu wala ku cantu dafa ëpp waaw fekkoon ne nit dana def loo xam ne dañ koo war a sant sant bu ëpp ñu ne yonantu la sallallahu alayhi wa sallam loolay muhammad ala wasni mufaal nga xam ne jëf ji dafay répété wu loolu taxaw mukk mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wax nañ ne bi mu amee ñaari weer ci biiru ndey aminatu la bàyyam faatu abdullahi aminatu bi nga xamee ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam juddu na nee na fi toog ci màkka ñu ngi koy wan dégg nga dëkk ya nga xam ne ñu ngi ca Busra fi mu toog màkka xale ya nekk Kaysar xale ya xale ya nekk xale xale Kaysar ya nekk Rum ñu ngi koy wan loolu mooy wane ne leer gi fii la jolle waaye dana daj àdduna yëpp loolu yëpp nag mu ngi xewoon ci guddi gi xam nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax guddi gim judd nitu yàlla yi nag dañuy wax ne yonentu judduwul ci guddi judduwul ci bëccëg wala sax neel borom xam-xam yi am taxaquk yonent mi ngi juddul ci njël wa bil asxaari hum yastaxfiruun njël guddi gaa ngi jeex bëccëg gi mu ngi tàmbali lëndëma tut kurus waaye leeragut tamit nàññi ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu juddoon guddi guddi reer xadaratul imaam bismillah bu juddoon bismillah